te ngërëm leen yéen safoo site internet bi di net bi tv di gën ci bopp xabaar yi dañ koy door rek kat nga xamante ne soxna Aminata Touré daal di koy yëkkati moom nag bi ginnaaw bu mu déclaré na candidat la ci élection présidentielle ñu den ma ci atuma laaj bi nga xamante rek moom la ko journal las moo di ne wax rek ci menace nga xamante rek kii di Macky Sall nag koy def ci ñu bëgg a réew mi ba noppi nag tur fi waaye Amadou Ba ci jëm boppam sax dadul di second tour di kaddu kii di Mimi Touré moom nag la daal di xamle kenn mënu leen a tere dem élection présidentielle ñu dem ma ci atuma 2024 waaye nag lam ca daal di yokk rek moo di ne nañ respecté képp rek sénégalais nga fexe rek ba élection yi nag mu bañ am xaj ak seen képp koo xam Sall daal dina koy def moom nag la mu daal di xamle ci mbir mu nu mel moo di ne nag kii di nga xamante rek daal koy wax naan dañoo bëgg a def réew dañ ko bëgg a taal noppi tur fi kan lay waxal exactement ba rek moom Aminata Touré la daal wax mooy réew mi nag jamono ji rek la soxla waaye nag ñu respecté képp koo xamante ne rek Sénégalais yi bëgg nañ mu jiite leen waaye nag nañ bàyyi rek nit ñi élection yoo libre lay doon ndax nag Sénégalais yi nag xam nañ bu baax ki ñuy leer te def nañu seen choix nañ leen bàyyi rek ñu def seen choix ñu mën amal nag wote yu jaar di kaddu kii di soxna Aminata Touré nekk candidate ci élection présidentielle yu ñu dem ma ci atum 2024 ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàtte abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen info